merci beaucoup et bonsoir à tous. On a vraiment le plaisir de vous retrouver ici pour l'ouverture officielle de la marque TAR by en saint Alors, Mr Ziza, qui fait la fierté de Saint-Louis du Sénégal. Euh, alors, en présence du directeur général de la course, M. Fabi Faye. Ah, ah, ok, merci beaucoup pour les prières. Alors c'est notre père euh, Fay, c'est le papa euh, du directeur. Monsieur Pabibla merci beaucoup pour votre présence. tous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup à notre cher papa. Merci beaucoup également à vous sëmm naa si géej géej sëmm waat ci dex géej mooy ndar daw pare naa pour feeñee te ku ma ndar sama ndar ndar lay am di daw noppul ma laaj fu ma jëm maa ngi sàmm ma sama maam nee na xamuloo très très très ému nga ne serait-ce que cinq personnes il samedi y a beaucoup de programmes gens c'est quelque chose parce que ils sont venus de très loin pour d'autres programmes mais ils l'ont laissé uniquement pour assister à l'ouverture de la boutique comme je l'avais dit récemment dans sur Facebook c'est une manière de remercier Saint-Louis. Parce que il y a de cela deux ans, dans un coin un peu reculé du Sénégal, j'étais un simple visiteur. Mais bref, pour y aller beaucoup plus rapidement, Dama dit, comme un simple visiteur, mais les gens ne m'accordaient pas un peu trop euh, d'importance. Mais il a fallu que ce discours, dans la considération bi changé automatiquement je sais pas ndax un Saint-Louisien yi Dakar bu len mer nak ya des Dakar wa il a fallu que ma wax dar la rek attention yep, parce qu'il y avait d'autres d'autres d'autres euh, amoon ñu mais il a fallu que ma wax dar la deuk rek attention yep. tourné automatiquement vers ci man pourtant man dafa lu dara ndar j'étais un simple citoyen

parce que man maay mom mom moy man lepp luma ma dugg suba ba ngoon buma buma bu ma bu nit xam leen ni moom moo ñàddoon <laughs> waaw noonu la demee ay quelque sorte collection était bàyyi nii juste c'est pour vous profitez-en waaw mi ngi noonu collection était là des trucs super cool pour aller à la plage Allez partir en boîte bien vrai que papa et suñu papa yi duñ de boîte mais ah. Ah. pour vous divertir en quelque sorte voilà wala qui doit wax soir, soirée sénégalaise <laughs> gars affaire à une autre, profitez-en waaw mais merci beaucoup de votre venue franchement merci hmm? ah <laughs> que vai acompanhar o pessoal. Você combina na né? casca? Da casca você traz, Vicente. Né, ah. ah, obrigado, amor. Voilà, gars, servez-vous. Servez-vous. waaw euh, mbokk yi nga xam yéen ñuy seetaan comme ñu koy defee saa su nekk ngi di euh, Ziza di Abdou Diop mel di créer li nga di euh, Ndar la ñu donc sans plus tarder dañuy daal di Euh, dalal ñi nga xam ne ñu ma fi ñëw bu ko defee ñu mën a waxtaan si li nga xam ne mën a donc ñu nekk fekk suñu benn yaay booy ah yaay euh, yaay ñoo ngi lay ziar maa ngi delloo ziar donc euh, tey Ziza créé lu nu mel muy muy doomu Ndar tey ñu bëggoon a xam nan nga gisee li nga xam ne moo di euh, création boutique bi. waaw Ziza moom suñu doom la kii mooy yaayam man xaritam la donc ñun ñoo ko yar euh, création boutique bi nag dañuy ñaan yàlla rek yàlla may ko si ndam parce que vraiment il a été toujours euh, quelqu'un bi nga xamante ni battant la donc kontaan nañ si daal vraiment bu baax parce que lii initiative bu baax na mhm. donc bu nu bu nu waxee Ziza rek dañuy wax euh, yaayam ndaxte Sénégal moom wala àdduna bi boo baaxee rek ñu ni yaaji la boo ne ñu ni yaaji la te tey defe naa lii référence bi nga xam ne war nañ ko mën ci moom donc sans plus tarder dañuy daal jël ki nga xam moo yaayam donc maman euh, maman tey euh, nga ñëw fii sa doom xewle créé ñu nu mel donc euh, lan nga ciy sàdd en tant que doom bi nga xam ne tey fierté la ci ci dëkk bi nga xam mooy Saint-Louis. dëgg merci beaucoup vraiment ci interview bi ñun moom dañu sant yàlla am sa doom vraiment mënoon na def leneen ak leneen mais yàlla xëy ko ci loo xamante ni njëriñu ñëpp la surtout que muy rendre hommage la ville de Saint-Louis bi nga xamante ni fii la yaayam juddoo moom juddoo fii loolu vraiment sant

sans plus tarder da nga koy daal di dalal mu daal di wax ci li nga xam ne moom la Ziza taxawal directeur ñu ngi lay ziar. waaw comme ni nga ko waxee rek donc euh, bu nee Ziza doon ki nga xam ne tey sa kër la yaroo nga bàyyi sa lépp ñëw taxawu ko ci ni nu mel def lu rafet lii donc lan nga am pour wax tey ci bisam bii nii. Euh, kontaan kontaan comme ni nga waxee ah mais pour rectifier yarowul sama kër ñun ñoo bokk fu nu yaroo. Mm-hmm. mooy sama kër maam sunu maam moo ñu yar ñun ñëpp muy Adja Awa Sow ñu juddoo nekk foofu mobilité très jeune euh, sama maam di ko protégé te moom ce qu'il moom moo ko moo ko xeex nit ku nekk li nga am yow yaa ko xeexal sa bopp fii c'est vrai que amul kenn ki nga xam ni gën nga doomu aadama. Mm-hmm. ku yàlla teg loxo moo ñëw. te yàlla yorewul ay tànk yorewul ay loxo si ay nit la koy jaarale boo gisee ku am ful am am fayda la à dire que nga teg ci loxo day dem nga ñàkk ci teg loxo day dem donc du coup c'est tout à son honneur c'est lui qui s'est battu hein moom moo dem jàngi am bagam dem communication mënoon na dem xam nga dem wuti liggéeyu bureau comme tout le monde mais il s'est dit que j'ai lancé un truc pour moi yàlla def ñun ñu nekk deretam balaa ñuy jàppale kenn nga jàppale sa bopp mhm. foofu rek mën nga kal on ne demande pas autre chose, c'est qu'ils réussissent et aussi qu'ils fassent travailler surtout les saint mhm. C'est ça qui est important. Donc, là, vous les Saint-Louis, vous avez dit que vous Oui, mais bon, euh, je me dis qu'en fait, c'est tout à fait commercial aussi derrière. Mhm. Parce qu'il ne faut pas qu'on se lève la face. Euh, Saint-Louis, c'est une grande communauté. Saint-Louis et, toute la diaspora, nous sommes fait. Nous sommes Saint-Louis. Donc, on a dit parce que si mbir la mhm. fi nga xam ni Saint-Louis war na fa taxaw doomu Ndar def ci war a taxaw mhm. parce que bu ci feeñee bu feeñee lii bu feeñee boppam la feeñal mhm. mais aussi euh, lancer aussi un appel euh, aux autorités de la ville de Saint-Louis ñi nga xam ni ñoom ñoo

gis ngeen laata ñu commencé daal na def nga xam di ñaan bi donc papa ñu ngi lay xaar tey gis nga sa doom moo xewle muy Ziza eh, def li ñu mel donc tey lan nga am pour wax ko en tant que tey muy sa doom بسم الله الرحمن الرحيم ñepp lu ñu am nañ ko sant borom kon man Ndorte kaddu nag ma koy jëmale ci waa juróom bu góor nga xam ne tey parce que dama war wax ne sax waroon na ko fekk parce moom moom mbiram moo def lu ko neex kon ñu koy ñaanal moom yàlla yërëm ko te jéggal ko te xaare ah ci gannaawam it yàlla teg njobootam bi parce que moom benn bi la am mhm. donc euh, yàlla barkeel ko yàlla sutural ñoom ñëpp sama kanam lañ juddoo macha allah ah du ma mën suru rek jox ci li wax ak li wax Aziz ku mos a xale bu mos dal la xale bu mos a njàngam ah man de mosuma dégg ñu ne kaay leen ñu àtte Aziz donc kon bësëm bii du doon mbetteel ba ca yàlla jàppee mu ngi góorgóorlu mu ngi ñefe parce que rek la mu diplôme yu nga ko am mais doo dem tëdd nelaw rek naan place da ngay góorgóorlu sababu lu la yàlla jox nga jël lu mu ca teg nga jël dañ koy ñaanal xam ne lorte la yàlla jàppale may ko wér wala ko sutura barkeel lii ba leneen tegu ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy uh, ko ak waajuram bu jigéen bi ak mbokk ak mboolem jullit ci daaja yoon bi sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla sax ñu ñëpp yàlla ko laal ñëpp wa salaam ok jangan ngeen jëfati donc comme ni ñu ko waxee rek daal di jël kenn si jigéen ñi mu tëj ko après ñu jël doomu ndayam nag muy euh, waali ñu àbb leen ko ah ok tey nga ñëw si sa bisu frère Ziza loo ciy wax euh, li ma def lu dul kontaan si te di leen encouragé ndax euh, lii ñu def ni c'est une belle initiative dëkk am nañu dëkk ñu bëri mhm. mais moom nekk na xale moom waali ñu nekk Saint-Louis dëkkoo fii màggee fi aussi xalaat li dañuy def lu dul leen ñaanal ak du leen encouragé. donc euh, lan ngay wax tamit waa Ndar yi nga xam ni tey euh, ñoom noonu ubbi lu ñu mel pour ñu gën a ñëw jàpp ci liggéey bi. bon waa Ndar du leen ñaax dara lu dul di leen wax ñu ñëw jàppale seen frère seen mag seen rakk. ñu jàppale leen jàpp si affaire yi parce que ñoom ñoo tax ñu andi fii lii bu dul ñoom rek tool du dem kon nañu jàppalante rek ñun ñu ngi leen di jàppale si benn côté wàcc nañu prix bu baax pour ñëpp mën si am accès. Mhm. kon ñun en retour dañ leen war a ah. doxal seen produit bu baax. waaw jaajëfal. ok liggéey rafet donc ñu ngi taxawoon nag doomu ndayu Ziza moom nee na buñ buy rendi rek bu amee ku dee rek ñëw jàpp saay ndax moo moo maa ñaatoon ah waaw dëgg la <laughs> donc tey sa doomu nday créé nu ñu mel boobu ba léegi yéen ci nekk hmm. dem beeg ñëw beeg coono gi daf mel ne tey euh, li ngeen xam ni moom ngeen doon euh, réaliser boobu ba léegi mi ngi doog a réaliser wu hmm. alors tey euh, nan nga yëgee tey nu ñu mel Mm. bon avant ma maa ngi nuyu ñëpp ki ngeen di kuréel ak santam. Mm-hmm. di rafetlu ci ni ngeen teewee yëpp kontaan nañ ci trop sax wax dëgg fa yàlla comme lu mu wax rek. Mm-hmm. nga woote même amaana bu dee cinq personnes ñoo ñëw sax neex na. Mm-hmm. mais jusque ni man ak Ziza du ma wax sax ay frère na nu wala ay doonu romb doom frère ay doom ndey wala genre yooyu man du ma wax ci loolu mais dama naan boog man. man maay moom moom mooy maan ah, man noonu laa ko jàppee parce que moom man maa ko gënal boppam man moom moo ma gënal bopp man moo ma gënal fuuf bët sama bopp voilà moom moo tax man si lu mu dugg dama siy ba mu jeex. ndax il paraît que aussi tamit yow la teg euh, wàllum ménagement bi yow yaay ménager ci lépp quoi. waaw waaw waaw man lay ma loolu li si sa xalaat mën nga ah man naa je valide su mu nee je valide rek da koy te bu génnee day naaj si ñëpp mais confiance boobu noonu depuis ba ngeen nekkee ndaw la wala dafa yàgg. waaw man je pourrais dire ba nekkee xale parce que ce n'est pas la première fois ñu commencé créer parce que man ak moom ba nu nekkee tout petit la xale bu ndaw a ndaw a ndaw boo xoolee affaire bi sax man mën naa wax si Lido la tàmbali Lido Lido dan ba nekkee booy dafa am ñoo xam te ne suñu parents dañ am ñun gàtti am ñoo xam te ne gàtti wuñ leen mhm. léegi par la suite ñun dañ daan créer suñu ay affaires yoo xam te ne mën nañu wax ni euh, duñ dem di ko jënd si marché mais ñun ñooy dem si bëli di di for di taqalaa di taqale ba créé man mën naa ne création foofu la tàmbalee léegi moom moo tax pendant tout ce temps nag lan ngeen wax ñi nga xam ñooy seetaan pour bu ñu bëggee xam exactement endroit fu mu nekk adresse beeg numéro téléphone beeg yooyu bon loolu problème parce que toujours dañuy def ay shooting ay vidéo et tout parce que affaire bu boutique rek parce que boo xoolee si ginnaaw dimension nii comme cocktail bu genre day nekk affaire espace shooting day nekk aussi tamit dañ fay installé suñu ay bureau wala genre ku bëgg gis Baye Ziza wala Baye Ziza dootu benn nit du man du moom léegi affaire tim la du benn nit du ñaar nit ñu bëri la voilà gars yi ne doon nekk si léegi ak bu nekk si biir dañuy chargé les compétences suñu toujours day nekk si affiche ku ñu soxla wala fii rek boo jëlee suñu numéro téléphone boo ñu contacté ñu daan la guidé boo ñëwee fi appelé ñu waxtaan affaire bi nekk muy demee.